di jaarale ci yow itam loolu di ko jëme ci mboolem ñi nga xam ne teew nañ fii di ay bokk ci sëriñ Touba di ay bokki taalibe di ay bokki jullit te teew sëriñ Abdou nag moom mbiram dafa yaatu dafay nituk tiraanga dafay nituk xam-xam day jàmbaar xam-xam boobu nag da koo jëlee ci Serigne Touba bi nga xam ne dafa wax ni man yàlla mi wàcc alxuraan moo ma firil alxuraan loolu nag lu neex a xam la ndax tënkal nañu alxuraan ci prix moo xam ne li ko dale ci fi mu tàmbalee ba fa mu yam ak lu téere yi réy réy mënta génn loolu sëñ Touba dane bi sunu borom bindee rooy daf leen a wax de leen ana kuy seen boroom yonant bi sallallahu alayhi wa sallam moo jëkk wax ne ko yow mu ne ko gannaaw yaa jëkk a tontu yow laa jiital yaa gën ñëpp yaa jiitu ñëpp. ak Cheikh Serigne Touba ne masque ay alxuraan yëpp génnul ñett masque yet masque ak lonk masque ak néeg mu ne ba nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeete na am ñu jóg bañatee nelaw ñooña ñooy waa masque ak yet gi dañu jug dootuñu dëng moo tax sunu borom jëkke ko ci alquran ulaayika ala hudan min rabbihim wa ulaayika humul muflihun nee na ñooñu iblis naagu na leen ndax mel nañ niñ war a mel ba noppi mu des masque ak néeg bi ñooñu li tax ñu sakk ko mu seen xol yi ñu sakk a tax mu ne ñooñu ñooy yéefar yi weddi nañ te dootuñu gëm mukk nee na ñooñu yonante bi naagu na leen ndax bokk nañ ci seytaane ba noppi masque ak lonk bi nag mu ne moo waral coow li mooy nafiq yi bu ñu demee ci jullit ñi ne ay jullit lan bu ñu demee ci ñeneen nit ne leen lu ngeen nekk ca loola la nekk waaye dañoo defee ne dañuy nax yàlla waaye seen bopp la ñuy nax sëñ Tuubaa ne masque ak lonk googu nag dinaa feq yi bu yonent bi amee la mu bëgg day dagg cet si mu des lu jubli bu boobaa ñu jub bu bu Iblis amee la mu bëgg banq li ci yoon mu soppi ku masque néeg ñu doon ay yéefar yaakaar naa ne loolu ëmb na alxuraan jëpp loo gisaat mu des ci alxuraan day leeral ak saraa waaye loolu mooy basi sëriñ Abdou Lahad ci sëriñ tubaa xam-xam boobu di xam loo xam ne doo xam fu mu ko jële te bi ma ne jàmbaar waxuma jàmbaari xeex jàmbaari tabe dafa wax ne ku la man ci joxe bu ngeen xeexoon moo lay moo man moo ma wax loolu dafa wax ne xam nga tiraanga fu mu tàmbalee mu ne ko déedéet mu ne ma booy ganali nit tàmbaleel ci raxasu mi na ndox mi bari ndax gan boo ko joxee ndox mu néew bu raxasoo bu ndox mi tilimee fa la gàccaam tàmbalee teraange sëñ sëñë Lahad ci boolib raxasu la dal sëñ Abdou Lahad na ma xàmmee nga luy dund ci yàpp wu ñurut ak luy dunde leneen lu leen wutale ma ne ko déedéet mu ne ma luy dunde yàpp wu ñurut du am buruñ mu ne ma gaynde boo doon nelaw bu jaaree ci sawet doo moo sib xaw naa dem ci loolu mu ne ma waaye gis nga ganaar boo doon nelaw bu la rombee da nga yeewu mu ne ma xam nga looy xàmmee luy gis guddi ak luy gis guddeeg bëccëg ma ne ko déedéet mu ne ma loo xam ne buy xef xef yi day jóge kaw jëm suuf mel ni nit cig leer la mën a gis waaye du gis ci lëndëm loo gis xef yi buy xef day day jóge ndeyjoor ak càmmooñ ñu daje luy xefe noona lu ne dana gis ci lëndëm am na bis ma ne ko man de ñu di la nax daf maa tiis mu ne ma xam naa ko xam naa ko xam naa ko ci yow waaye dafa am loo xam ne dama la ko bëgg a xamal nit bu lay jéem a nax nga won ko ne ko xam naa ndax ya da lay fexe leneen lu gën a raw loola moo tax ku may nax ma nangu ci pexe mu jëkk ji su ko defee pexeem yépp yem ca bu ma fittiwaatee jëlaat sans bopp nee na ma xam nga jàngu tubaab nu mu demee ma ne ko déedéet mu ne ma weesuwut ñett njàng mu jëkk mi njàng mi ci digg bi njàng mu mujj njàng mu jëkk mépp nee na mooy dañ lay jàngal ne la fexeel bu la kenn mën a nax neena jàng wu jëkk yu weesuwut loolu jàng wi ci des mooy fexeel ba koo mën a nax nga nax ko woowu mooy wow ñaareel wu mujj yu nag mooy fexeel ba koo nax du xam ne nax nga ko <laughs> moo tax nun kenn mënunoo nax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëriñ bi noo ngi lay nuyu bu baax